bi passé waaye procès bi dañ ko renvoyé woon ba le 3 juillet le 3 bi lañ tàmbali woon àtte bi waaye cependant kii di témoin bi jotutu ñëw ba tax na défense bi dafa wax pour ñu renvoyer procès bi mais juge bi dafa bañ na kenn du ko renvoyer parce que témoignage bi moo ngi ci procès verbal bi avocat kii di Ibrahima Khal nag ñoom dañoo génne lii di certificat médical d'incapacité de travail bu 32 jours waaye kii di procureur bi nangu loolu ba tax na kii di juge bi Ibrahima Sarr moom dafa doon dal ci prévenu yi bu leen di fàttali que ne dañoo nekk ci benn dëkk boo xam ne dëkku yoon la amuñu droit di def lu leen neex katapulkile bi Membre de demandé, mis des accusé, le tol de si, un an ou le six mois de prison ferme. Ibrahim Fall nak, dafa ñëwaat si mbir yi, de venir xamal que ne avant ñu filmer vidéo bi si bi, gars yi fa lañ ko commencé woon Taxi Teg si mu ne, su vidéo kon affaire bi du musa àgg fii nii. Quant accusé nak, nag, ñoom dañoo exprimer seen Nous y jéggalu bu baax. Avocat Ibrahim, di Ibrahima Fall nag, dafay de lu de si 100 millions de francs CFA, ou dommage et intérêt. Muy expliquer ne moom client am son non lol. Timbin mi afetan ako. Zizwinak, dozetan na de demande de liberté provisoire bu accusé idef. tenena de yobu procédé à délibérer le 17 juillet. Moulini, nous n'en lat sen khalat à travers les commentaires. Boulen faté avounou, gen partage vidéo vi. S'il se, nous y waranta bebenen sud de Dakar.